tiis wu métti nag moom laa askanu Touba dal di fanaane ki démb bi ay 18h di jot ci ngoon lii nag di ak lakk gu métti bu amee fi ñuy wax Guisiar bokk ci quartier bi ñu wax Daaru Marnaan xaw a jege marché Ocass 2 foofule nag ñetti tuut tànk nag ñoo fa ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp bokk benn baay tax askanu géey woowee daal di sëngeem jamono jile lakk gi nag kenn xamut lan moo ko waral waaye jàpp nañ ne mi ngi soqeekoo ci diggante bâtiment bi ak miir bi nga xam ne moom moo wër kër gi. ñoom ñëpp ñoo bokk benn baay ki nga xam ne ni moom moo di Maguette Gueye ak Sang Gueye ñetteel bi di xale bu jigéen bu ndaw di seex ci nga xam moo di Sang Gueye nag moom muccandi woon na ci ci jamono bi nga xam ne lakk gi am na ba sapeur pompier daal di koy yóbbu ci urgence bu hôpital Matlaboul waaye nag metti metti lakk yooyu daal di metti nag tax na tey jii nag mu daal di xëy ñàkk bakkanam moom Ami Gueye moomilee bi ñu sukkandikoo ci seen nijaay mi yëkkati ay kàddu nag lakk googilee kenn xamagul jamono ji li ko waral waaye seen yaay ak seen papa nekkuñu woon ca googilee kër kër ki nga xam ne moom moo di seen maam rek moo fa nekkoon te amul woon kàttan ngir jóg mën a dimbal yooyu li xale maam gi sax di fësal ne dégg na ay yuuxuy gone waaye boobu mënut a jóg ginnaaw bi nag ci la dëkkandoo yi daal di jóg nag dem wàllu ji fekk na liy am daal di am ba noppi jamono ji ñuy wax ak yéen nag nga xam ne ñoom ñoo di policiers yi nag ubbi nañu ab enquête ngir xam lan moo waral lakk góor gi mu nekkoon Awa Ndiaye fii ci Touba pour la télévision Touba TV